ci man ah, li ñu am ñoom mu ngi ci man dafa génn guur rek. te bu ko jël moom Gris bu lekkoon sa avance tey loolu mën naa génn. xeex ba bëre bàyyil di yàq turu jàmbur. maa ngi lay nuyu. courant waaw courant John. waaw. borom costume na bàyyi ba mu lekk ba pare rek. am na ku ne ma ku ne ma Mbaye Diouf xam nga ko bu bawal. Mbaye Diouf bawal waaw. mbër. waaw xam naa ko Mbaye Diouf. dama ko laaj sa digganteeg Tapha Tine. mu ne ba nga koy daan booba Tapha da di gune waaye neen ma guddi yi moom ne na xam na ne yow yaa gën a ne Tapha pour mu daan la dafa yomb ci moom waaw loolu la mu ne ba may daan euh, Tapha de xanaa man paalaaw non xale nga woon mais xëy na daa <laughs> ah noonu dafa xanaa man paalaaw ba ma koy daan ma tafaati ñoom maase woon te ba ñuy dugg si. booba nee na ay maanaam amul encadrement technique bu do maanaam encadrement nekkul ñu mag quoi ay xale ko waroon. Mm. mais léegi nag ay mag ñoom mbay juufa ci ginnaawam moom ga parce nga ko mooy li lay daan ci tafaa dafa yomb pour tafaa daan la yow ci sa bëree. Ah. waxul ne yow da yomba daan mais bu dee yàgg tafaa nee na loolu day yomb ci moom pour mu daan la bi. ah baax na nañ bàyyi ba mu taxaw rek peut-être moom xam-xam ak fu mu toll la moom la wax xam naa man aw ma encadrement. nañ bàyyi ba tafa magul ci diggante ah la dëgër ci diggante bi. ñaar seen combat nit bëgg nañ ko de. ah waaw nañ mu xalaat naa bi yoon bu taxawee moom. xam nga bee naa da nga koo xaboon muy kii nga wàcc songu ko. waaw ah jàll. bi naa di ngeen samp jaaga de. jàgg mooy lan. gas tànk ci suuf xeex. waaw def ko bu ngeen tax bu ngeen waree bari bi yoon de. nañ bàyyi ba ñu yegg ci rek. buñ ci yeggee dinañ xool ndax dañuy suul wala duñ suul hmm. waaw mag ñi dañ naan suul bukki suulu bukki bañ yegg ci. a suul ak yow ay tànk. Tapha Tine Tapha moo gën a neex a bëreel nag de ci làmb yi. <laughs> <laughs> may wax ni xam naa bu baax. Ah. Ah, ba ñu ci rek. maanaam dafa ne maanaam ci techniquement dafa neex a bëreel wala. déggoo lu ma la du ma wiiri koñ balaa muy waaj loolu dama ne Tapha a neex a bëreel. Hmm. ndaanaa nag mais dafa neex a bëreel ci man naqarul bëreel de. gars yi ñoo ko bëgg a difficile rek. non jafe wallaay jafe wu. moom ci la bokk. kan moom. déedéet. kon xam Tapha Tine day nappaaje. Ah, pare na. nappaaje. ka lay nappaaje. Ah, ku jël avance am la wax. nee ku jël avance am mu nappaaje la. ah nee nappaaje la génne. ah mais dëggee da lay nappaaje. Hmm. déedéet déggoo ma naa la moo gën a neex a bëreel. naqariwul bëreel de gars yi ñoo ko bëgg fi difficile bëgg ko yóbbu fu mu yeggul. gis nga xeex bu mu xeex ak Bombardier xeex kook Elton. waaye yow la dëgër da ngay waxal wala damaa mënul. yow yow moom it yow kay le penseur le penseur du wàllum defe naa Sénégal yëpp xam na yëpp xeex lañ ne moom nga gën a maîtriser sax. balaa muy neex ngay xool ku. waaw kuy gis ko mooy ku yor fital tiire xam fi muy jam fan la waaw mais boo luppee rek. nekkoo nekkoo nekkoo nekkoo xeexkat dëgg. Reug Reug seeti naa ko fi mu attaqué la. kan Reug Reug waaw champion la ndaanaan la na góorgóorlu rek bu mu yàqamte ndaanaan la maa ngi koy ziar. <laughs> daa mel ni du xale la boo xam ne fi ne sëkkamtal na leen de. parce que dégg naa ko ci vidéo mu ne du yow du Balla gay du mu lu amut ci yéen ku ko ëpp doole. moom lii la wax moom loolu la gëm nee na. waaw dafa ne. du man du Balla gay di xaw ma kan kan gisul ko ci ëpp doole. waaw c'est normal mu wax loolu. am ah, man mën naa taxaw ne man ñoom booy kenn ëpp ma doole saa yi macha allah dama am doole. macha mais lu tax gars yi wax ne dangay nga jafe Sénégal dañ ne da ngaa jafe bëreel. ñu ne damaa jafe bëreel. waaw parce que dama dul maye. làmb. boo nekkee sportif boo xam man dafa am ñu topp sa ginnaaw. di sonn ci yow di werante waroo maye. waroo bokk ci ñi nga xam dañuy caaxaanee làmb parce que làmb la ku daanu rek ruus waaw man nag defet dama ko bañ ba nga xamante ni bugguma ko bokkul sax ci sama parcours moo tax su ma ñëwee bés ba dama koy téye en mais gere ko lu supporter yi mën a wax ma téye gérer lu mbër ma war a ma gere ko. moo tax gars yi ne yàlla dàq défense ci làmb ji. waa làmb dafa nekk li nga xamante ne. Euh, mën nga ñëw tey nga gis bunt bu leer nañ nga dem gisoo bunt nga taxaw ba gis bunt waaw tey bu ma ñëwee taxaw li nga indi ma jàpp daan la ci man la nga jàpp ma daan ma ci wax gi jeex bu fekkee ndaanaan nga ñu ne yaa dàq bëre yaa dàq xeex yaa ëpp fit mais jàppal mbër mi taxaw yow nga jàpp daan ko wala du noonu ah, waa yow qualité yëpp ñu jox la ko kon jàppal mbër ba nga daan ko bu fekkee li ñuy wax dëgg la mais nga ñëw mbër ba loolu ñu wax yooyu ci ci yow ñu ne moom nga am nga ñëw taxaw bëreeg moom daanoo ko ci mu jàpp daan la kon kuy ndaanaan bi kala jàpp daan la waaw kon kay mooy loolu. lamb ci dàq bëri. ku ci dàq bëri man. waaw ko teg. fi ma ko teg fu wér la xam nga fan laa ko teg damay ñëw bës bi xool bés bi. xool bés nu mu tëddee ma xam ne bés bii nii tey dañ may jekku ba nga xam ne jekku nañ ma te duñ ma ci daan kookoo mën a bëre maanaam koo xam ne moomul bés mu fexe ba bés bu ñëw ci loxoom bés bu ñëw ci loxoom wala bés boobu noonu kenn du ko ci daan kookoo mën a bëre yow yooyu yan combat ñëw ci bés bi wóor na bi nga ñëw moomoo ko fexe ba récupérer ko téye ko non ko jox ndax sinon mbër boobu day fuuy ah, kooku bëri ngeen ba pare ah, ah, wax rek kañ la waaw wax ma ci ñaar wala ñett. am na non ma la ko ci wax nag itam am na. sa revanche ak Modou Lo ku ma mën combat sama revanche ak Modou euh, ban la ci. di ngeen mujj a bëri Léopold. sama combat ak sama combat ak Modou Lo ah, bi kay njëkkante woon rek. jekku la woon. ndax am déedéet wala wala ngeen laaj.